أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا مصطفى صلوات الله وسلامه عليه بوكي نغلين دي نيو دي لين زيارة دي نيو تيلي سبيكتاتور ييغا خامتاني نيغي سافو سين تيلي بو ماك بيلي دي سينيغال ستريمينغ تي في نيكاي واخ سين اس تي في دي نيو مبوك ييغا خامتاني سافو سونو ايميسيون بيلي دي ريبير دي tey nag ñu nar a àndaat ak yéen ci suñu émission repère des jeunes na ci àndaat ak suñu invité bile nga xamante ne jot nañ koo invité suñu euh, émission bale passé mu développé fii lu am solo loo xamante ne yaakaar naa ne ñi si jëriñoo bëri na moo tax mënuñu koo ñàkk invité waat ci suñu émission bile di El gore Goré léegi nag tey ñu nar a waxtaanee thème bu am solo muy lan doylu doylu nekk thème boo xamante ne dafa nekk euh, nu mu tuddati sax. actualité surtout jamono ji ñu tollu euh balaa nak ñu xuus ci thème obulé dañ koy jox mu nuyu bismillah waaw jërëjëf ma ngi lay ziar bu baax baax di ziar euh, wa SNS TV Sénégal Extrême min di leen béggee bu baax baax di rafetluwaat ci émission bi ndax jallon nañ fi ñu ñëwaat jàll fi kon day wone ni internet yi ñi ngi ñi ngi gis liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy liggéey ak sa taxawaay ak sa mhm. concept émission bu noble bi muy repère des jeunes tey na nga indi thème boo xamante ni ab théâtre la mooy doylu mhm. ñi ngi jëm ci tabaski ku ne tabaski nag ne ay bëgg-bëgg mhm. boo doyluwul rek mën nga cee sonn comme que jaamu yàlla la tamit mën na am benn comportement boo xamante ni da ngay jàpp ne mbir mi obligation la ci yow ba soo doyluwul di gis ëllëg ku la ci xeeb kon ñu ngi lay déglu ak question yi nga xamante ni moom nga ñuy laaj ci doylu ah macha allah euh, El Hadj dafa mel ne sax xaw na koo laal tuuti li nga xamante ne moom mooy doylu surtout tabaski bi nga xamante ne jublu nañ ci euh, ñu si bëri sax dañuy dem ba affaire bi concurrence lañ koy jëlee ci tabaski bi nga xamante ne jaamu yàlla la parce que yow doo gis li nga am sa moroom ngay gis li mu am ñàkk doylu ci li nga am dalay jaral sax yow nga sàcc. wala jëf-jëfin yu bon yi nga xamante ne ñu ngi koy seetlu si jamono ji ñu toll léegi nag yow ci concept boobu noonu nan nga mën a définir li nga xamante ne moom mooy doylu waaw maa lay ziar bu baax doylu tey su ma ko doon def comme définition euh, doylu dafa nekk benn alal boo xamante ni alal jooju du jeex hmm. da gis alal bu nekk day jeex mais alal boobu du jeex Seydina Ali dafa doon wax lu am solo hmm. Seydina Ali dafa doon wax ñaari façon wërsëg moo am mu ne wërsëg bi nga xamante ni yaa koy dem uti ak wërsëg boo xamante ni dañ la koy utal mooy wërsëg booy dem uti sonn ci pour am ko ak wërsëg boo xamante ni dañ la koy utal mu ne wërsëg bi ñu lay utal nag mën nga cee jot mën nga cee bañ a jot te lu ëpp dañ la koy jox loolu mooy doylu mooy comportement bi ngay demee di uti nit ñi ci loolu la ñuy xoolee ba su teewee sa ginnaaw sax ñoom lenn rek la ñuy delloo dañuy xam ne yow doylu rek moy say mbir yow la ñuy choisir kon doylu ci xol lay nekk doylu li doylu ndax xol moy bëgg mo wara yamale li nga xamanteni moy bëgg légui nak doylu bobu moy alal ju dul jeex mais xol mo koy condition mo tax nak bu amé ci xol ba xol bi doylu xam nga yan résultat lay jur day waral loxo yo xamanteni loxo yoy day doylu xol bu doylo loxoy day doylo motax dañuy wax ni boroom xam-xam ni dañuy wax nee li nga xamante ni moom mooy jëf jëf bi nga xamante ni ut ngëneel bi gën a bon yoon bu gën a bon ci ut ndëgeel ci ci ci ngëneel mooy nit koo xamante ni buy ut dara du ci ànd ak xelam donc ni doylu ci xol mooy bëgg mooy yemale mhm. mais nag xel bi moom moo war a nekk loo xamante ni mooy niital xol bi li muy bëgg kon nga gis ni nit ki bu yamalewul ay bëgg-bëggam du doylu dafay nekk koo xamante ni dafay sonn kon nag nit foog mu yamale ni li ci nekk buñ ma ko joxee fii nii la war a toll ak man mi ñu ko jox ban njariñ la am ci ma mais nag munoo dem jëlal sa bopp loo xamante ni soo ko jëlalee sa bopp ëllëg ci ay coono la lay yóbbu déedéet kon doylu daal ci xol lay nekk bu melee ni mu war a mel loxo yi lépp lu muy jël rek dafay nekk loo xamante ni dafay ànd ak xol bi mais nag xel moo koy contrôler kon pour nga mën a am doylu foog nit ki li muy bëgg mu ànd ceeg xelam. mais ànd ak loolu est-ce que sax euh, ñeetaange mooy ñeetaange ba ëpp comme ça nga gis sa moroom am dara yow nga ñee ko ñee boo xamante ne yow dalay jaral nga def loo xamante ne waroo ko def pour am loolu est-ce que ñeetaange boobu noonu mënuñu ko tuddee ñàkk doylu. waaw ah, ñàkk doylu ndax tey yow ki ngay ñee li ñu wax sànq rek ci doylu mooy xol. nga gis pour am amul yow di nga ñee nit sax li nga yor moo ko gën léeg-léeg nga teg bët ci li mu yor yow li nga yor moo gën fuuf loolu mais da ngaa xeeb sa bopp xam nga nit doo xeeb sa bopp heure boo xeebee sa bopp rek di jéem a xool di diw moo ma tane commencé douter sa bopp mhm. yow bu boobaa da ngay réer mhm. te boo réeree nag li nga yoroon mu nekk njariñ da nga ko fiy bàyyi ki nga xamante ni moom ngay ñëw mën naa jël loolu kon bëri na koy ñee fii tey mhm. moom mi ngi ñaan yàlla toog place bi nga xamante ni foofu nga foofu nga toog kon nga gis nag waroo teg bët kenn da war a gëm li nga xamante ni moom moom nga yor mm-hmm. li nga li nga téye muy sa wërsëg loolu da gëm war a gëm ni moom la moom nga yor boo ko toppatoowee fii ak ay at loolu dana nekk loo xamante ni doy la mais daal loolu li ko fi mën a baare mm-hmm. mooy nit ki li muy bëgg pour mu doy lu dëgg-dëgg foog mu ànd seeg xelam xel bi moy xalaat ki ngay ñee mhm. fi mu toll fu mu ko jëlé te xamoo sax fan la ko jëlé fan la ko jëlé su la ko nitali won nga tax sa gémmiñ pour nit doylu foog mu and ak xelam mhm. parce que xol mom moy tal li nga xamanteni ni doylu li ngay gis diko bëgg di gis ñi nit diko ko diko oti so uti ak sa xel rek si musiba la lay jëmee té da ngay gis sax euh, comme xalé jigen ni yalla ma yalla jégal ci wax ji ñi nga xamante dañuy jaay seen bop ngir seen morom amna iPhone nangam iPhone 13 par exemple mu jaral la yow nga nga def lu jëf ju ñaaw jooju pour am loolu wala xale yu góor yi nga xamante ni ñu ngi sàcc sàcc bu instant bi jamono ji ñu toll surtout jamono tabaski bii nii sàcc moo ko lëmbe lépp rek yaakaar naa ne ñàkk doylu moo ko waral. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee tey xale jigéen ñi nga xamante ne dañuy jël uniquement di jaay seen bopp te nit bu demee bay jaay boppam mooy mi ngi jaay ngorom. ngor <laughs> mooy li gënoon seer ci yow en tant que yow nga war a nekk yaay nga war a nekk koo xamante ni société bi. yow jigéen nga dañ lay waajal nga waaj nga pare pour société bi li ñuy tuddee ni école nga boo xamante ni da nga war a produire ay élèves ak ay étudiants yu bëri en tant que bu demee nag ba yow alal mën bëgg-bëgg àdduna mooy tax nga dem jaay sa ngor boobu. Mhm. yow war nañu xoolaat li nga mel. aussi nga nekk ndaw nekk jeune waroon mën a dem liggéey li nga am mu doy ci yow. Mhm. nga gëm ni yow sama nattukaay lii la samay capacité yam nga war a doylu loolu nga dem di joxe sa bopp loolu dañuy xam ne yow xamagoo foo jëm mhm. loolu nag li may fàttali Yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu mu doon wax mu ne ki ñàkk xaw tuuti mu nekk yéefar ki ñàkk xaw tuuti parce que li mu fi wax nii yépp li ko waral mooy nit ki amul confiance ci boppam dafa jàpp ni dafa ñàkk mhm. léegi nag dinaa ko ut utin boo xamante ni utin bu bu bu bu ñaaw la daf may fàttali yeneent bi doon na wax naan Eh, laisa sadi lim do ci ben xaalis ne lan tamuta nafsun hatta tastakmila risqaha wa ajalaha mhm. fa ajmalu fi talabi khuzu ma halla wa da'u ma xarama mon nit ki du de mukk lu dul wursagam dafa jeex mhm. ba pare digam jot mhm. mais ki doylu day wara xamni mom ni ben ta bu fi ay moromam yoron alal ñooñu sen tabi bi mu jeexé dañoo xeewi yaa ngi comprendre kon warna na bu dee dafa doylu moo koy jox repère muy wat ci lool benen bi ci top mooy euh, risqaha wa ajalaha aussi tamit wërsëgam jeex diggam tamit jot mu gëm ni lépp lu jeex rek li nga war a jot di nga ko jot beneen bi outil euh, mu nekk ut boo xam ne ut bu rafet la parce que ut bi su ñaawee ëllëg su mu lay yóbbu ci ay conséquences la lay yóbbu kon moo tax mu ne leen na ngeen rafetal ci ut bi nangeen jël lu dagan mhm. jël na ngeen bàyyi tamit li nga xamante ni mooy lu lu xaraam kon moo taxoon yeneen bi doon wax ni Eh, ki ñak xaw tuti mu doon kéfer mhm. lool nak dafa bëgg nit ki lu mu bëgg bëgg bëgg na ci and ak xelam parce que li ngay bëgg tay boko joté rek mo yow jépi ko parce que lu baax bu ñëwé ci kaw lu baax day folli lu bex lu baax li fi nekkoon te yow sa yéré bu bes bi nga am sa yéré bu bes bi nga am mhm. so amaté benen yéré bu bes da ngay da ngay folli mhm. yéré bu bes bu nga amon tay mom ngay mom ngay ki mom ngay jël tay mom ngay consent ci yéré bobu ngay jox yitté yaa ma gën a xam sa bopp soo amee yére bu bees tay yére bu bees bi du moom ngay gën a bëgg yére bi nga amoon hmm. kon kay nit dafa war a doy li nga am tey da ko war a téye bu baax hmm. pour suba tamit nga mën a xaar di nga amaat leneen heure boo amee di téye suba mooy tax li ngay amaat da koy mën a téye te sooy am tey di amaat suba da ngay amaat suba di amaat ginnaaw suba bu boobaa li ngay téye dafay gën a bëri mais bu dee nag da nga doyluwul ànd toog sa xel daf lay dugal ci loo xamante ni ëllëg dootoo ko tal Oh, macha allah mais euh, man responsabilité bi dama koy xaw a ci kaw parents yi touti parce que da ngay gis ko xamantene ne mu ngi yor ay njabootam peut-être que amna ko wala sax mu ñàkk ko am mais événement fay jot par exemple tabaski wala korité mu jël domam bo xamantene xalé bu ndaw la 4 ans wala 5 ans te yaakaar naa sa dom loo ko yar rek ci loolu lay magalé parce que loolu lay gis yow. nga dem jëndal ko sa chaque événement sa bu ñëwé nga jëndal ko yir bu gëna a cher yére yi.

pour pour am li nga xamantene yaayam tamalon nako est-ce que euh, responsable li nga ko pousse ci waajur yi aussi. waaw xam nga li nga wax sank li nga waxat dafa delu wat ci walu yar. moy mm-hmm. wajur bi moy tagat domam parce que tay bu fexewul domam mu jël jikko ak bëgg-bëgg lu baax. Mm-hmm. ak lu yamalé ëlla kan lay tek ciona parent bi lay tek ciona parce que tay bu sàccee ci kan lay dellu doomu diiw la ah bu démé di jaay bopam fan lay dellu doomu diiw la. ah kon tey sa doom ji ngay yar tey yaay xool yan jikko nga ko bëgg a jox hmm. tey xale moom xale la moom xamul dara lu dul lu mu bëgg yaa koy yemale hmm. danga koy jàngale carrément jikko doylu ci moom mu xam nan la ñuy doyloo hmm. moo xam même lekk bi nga koy jox ci kër gi da nga ko ci war a éduquer ci wàllu lekk boo xamante ni du chaque jour li mu bëgg a lekk rek lay lekk mais war nga ko jàngal ko àdduna mu xam ni carrément am na fu situation bi di tollu doylu kese moo tax lu ñu la jox nga daal di téye waroo am looy taamu ak mhm. looy bañ mhm. kon nag kooku bu ñu ko éduqué moom day dimbali boppam moom bu demee ba màgg dafay dimbali bopp parce que yenn yi dootu ci nekk nga xamante ni dafay dugg mhm. Omar ibn Abdul Aziz dafa doon wax lu ama am solo mu ne ñaar yi buñ ci buñ ci yaree nit nit ki mën na réussir ci àdduna mooy nit ki mu fexee ba li nga xamante ni mooy doylu mu doylu ci boppam mooy comme li ngay wax nit ñu fexe ba defar ko éducation boo xamante ni dafay doy lu mooy lu mu am rek jikko boobu loolu doy na ko kooku day noppalu beneen bi tamit mu ne ma fexe ba téye làmmiñam mu ne ñaar réussite yooyu bu ko nit amee rek xam nga nit bu doyloo lu mu am mu doy ko xeebul boppam du ñee kenn tey yaa ngi yor sa 8-8 di dawal moom vélo boobu mu yor mooy 8-8 am léegi kooku vélo boobu muy yor da koy téye ëllëg mu toppatoo ko may ko frère suba mu dawal 4-4 Mm-hmm. ginnaaw suba mu may 4-4 bi frère am ginnaaw suba mu dawal 8-8 xam nga ko dul feebar léegi ñu tàggal nit soo dul feebar soo dul am jafe-jafe soo dul am ay bëgg-bëgg yoo dul jot nga koy muñ bu yàggee léegi nga dee foog nga am jafe-jafe foog nga am feebar am foog mu am ku jël pee mm-hmm. léegi ki jël pee nag da nga war a xool yan yoon la jaar ba jël pee nga jaar si yoon yooyu mën a dem li nga xamante ni da ngay jël pee foofu la ñuy waxee kon xale parents yi mën nañ jëlaat responsabilité parce que nag parent bi bu jëlu responsabilité yar doomam ci doylu ci conséquence da koy mucc mhm. mooy doomam dinañ ko dugal kaso doomam dinañ ko yuuxoo ne wuy sàccee mhm. doomam dinañ ko jëw ci koñ bi ne moom mooy jaay boppam kon daal li ma mën a wax mooy si doylu ku dul feebar léegi ñu tàggeel kon foog nit muy am jafe-jafe soo amee jafe-jafe muñ ko foog mu am àdduna mi ki jël pee mhm. waaye nag ñee baax na de waaye du nekk ñeewaate boo ah. xam ne da ngay ëpp parce que lu baax la ñuy ñee waaw mhm. lu positif moom la ñuy roy parce que nit ki mën na am ay qualité yu egg par nga xool waa kay nga xool biographie am mhm. nga fexe jaar foofu ba am li mu am mais pas nga teg ko bët bay dugal sa bopp foo xamante ni say capacité eggu fa waaw mhm. waaw lu tax sax ma posé la question boobu noonu parce que dama teewlu benn benn soxna suñ suñ moroom yaay la mu waxtaan ci benn tele mu ne moom ay doomam bu tabaski daan jot benn jour dafa dem ci tailleur ba jëndal tissu jëndal leen tis tissu bu rafet dem ci tailleur bi ne leen euh, gis koo xamante ne war na mën a tollook ay doomam mu woo leen ne tailleur bi euh, euh, na natt ñaw bi ci ci seen xale pour juste pour nga xamante ne doomam bi di nga xam ne ñawal na leen léegi mu ñawal doomam yépp jël yére yi def ko ci mbuus takk dugal ci bataawam tëj jour euh, jour événement bi ñëw xale yépp añ ba suur toog di ko xool moom tamit mu leen xool waxu leen dara ñu euh, ba noonu ba guddi jot ku nekk dem tëddi ñu xëyaat suba ñu añ ba suur pare mu génne yére yi ne leen gis nga bii yow yaa moom bii yow yaa ko moom jëndal naa leen yére depuis cinq jours avant événement bi mais juste pour jàngal leen benn mbir ndaxte doylu dafa am solo pour nga xamante ne yow euh di nga xamné ne yow chaque jour nekul da ngay am dara. Mhm. tay man nga am suba nga ñàkk. Mhm. loolu nag boo ba jang yow da ngay doylu daal. Mhm. bes bo amul tamit du du la def dara loolu moo taxoon sama poser la question boobu legui nak malay laaj lan nga si jangate ci ki non. non wa jërëjëf ni ko waxe damay am mbégte ak contenté dal di ci tontu bu baax. wa xam nga koku parent la ta parent buñ ko waxe model la moy say dom ni nga leen bëgg a yaree ëllëg yaa koy def. Mhm. xam nga tey moom xam na lan mooy objectif Tabaski mooy xale bi na fexe ba sol ay yëre yu set. Mhm. waxuñu dem xottil ko lu bees mais na nga ko sol lu rafet loo xamante ni dafay présentable parce que jouru feet la moom fexe na ba ñi nga xamante ni ñooy askan bi li ñu def seen bopp jàpp ni yére la ak sañse mhm. moom mu jël ay doomam bégal leen te loolu sax lañ soxla ci fête mooy bégal leen tëggal leen ñu fecc waxtaanal leen. te loolu moo war a ñëwaat ci kër gi parce que kër yi bu njëkk da daan am maam am ndijaay am bàjjan am lépp xale bi dañ koy encadré ci biir kër gi léegi xam nga kooku foofu mu dugal doom yi dootul nekk ñoo xamante ni tey affaire doylu moom leson boobu mokk na. Mm-hmm. parce que ci jour bi fexe na ba bégal leen ci leneen wane na leen feet bi du luy gese bégal na leen tamit ci àdduna wane na leen àdduna ñëpp mën nañoo solo di sañse di ñëw di ñaan si ndéwénal bu leen xool ci loolu. mais xool leen ni tey da ngeen di am mais suba dangeen di ñàkk mooy li ñu doon wax sànq rek mooy waajur bi euh, yar bi muy yar doomam. Mhm. loolu moom mooy feeñ ëllëg. damay dégg sax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon wax naan euh, ki nga xamante ni moom mooy waajur bi kullu mawludin yuladu alal fitr fa waaxu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majisaanihi mu ne xale bu nekk mhm. da nga ci benn environnement boo xam ne environnement bu sain la mooy da ngay yor comportement yu baax comme doylu bii ñuy wax day nekk si yow. Mhm. mu ne li koy changé ba ëllëg nga mën a ëppal dem di sàcc wala ngay def violence wala ngay def jëf boo xamante ni ëllëg dooto ànd ak sa dignité ak sa personnalité mu ne si say ñaari waajur lay dépendre benn ñu sàmmal la ngor mhm. boobu bi nga juddoo wala. ñu bañ la koo sàmmal nga dem nekk ci euh, yeneen diina yi nga xamante ni moom la yàlla autorisé nit ki war ko dund muy yahud yeeg wala juif Euh, muy juif yi wala nasaraan seek wala majuus yi mu ne loolu nag si waajur bi la dépendre kon nag waajur boobu fexe na ba sàmmal doomam jikko yi nga xamante ni ëllëg kenn du xeeb ay doomam kon moom xadis boobu yenent bi doon wax ci loolu la basé wu fexe ba jël ay doomam xam ne ñii dañu judd ci benn environnement bu baax mu téye ay doomam gàttandu leen ba buñ dem ci environnement boo xamante ni environnement bu bon la bu defoon contraire xale yi ëllëg bu leen xañee yëre denc ko di xaar su ginnaaw soo ma jox la xam nga lan mooy am mm-hmm. xale yuy jooy xale yi yuuxu mm-hmm. xale yuy boole xale yoo xamante ni danañ ko boole ku nekk mm-hmm. kon ay xale yu ñàkk yar lay am mais nag daf leen jox jikko boo xamante ni tey moom moo gën mooy alal ju dul jeex alal ju dul jeex mooy lii ñuy waxtaanee muy doylu nit bu xasee doylu rek euh, dafay noppalu ndax wax naa la sànq ni doylu ci xol lay nekk waaye li koy ne pour mu mën a am doylu bi ñu bëgg mooy xel mi moom moo koy nekk loo xamante ne moo koy contrôlé wax naa fi léegi tamit ne la tey nit mhm. bu dee tey dafa yoon bu gën a bon pour nga uti teraanga mhm. yoon bi gën a bon pour nga uti teraanga mooy nit ki bu demee di doylu di di uti dara te àndut ak xelam mhm. bu boobaa ngëneel du ko am mooy du am lu ko doy parce que xel bi su la soree rek nga ànd ak xol bi bu yàggee dañ lay xel ah allah damay dëggal rek nga wax euh, Euh, di dellu ci waxu suñu sangu-sang yi di euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis mhm. al qanaatu kanzun la yanfa mhm. nee na doylu euh, magasin la boo xamante ne du jeex mhm. nit ki soo doyloo rek ñàkkoo dara parce que yaakaar ne boo doyloo loo am donte sa kër nga nekk di añee sombi di ko reere doylu nga loolu xooloo ki nga xamante ne mu ngi togg ginaar wala mu ngi togg méchoui yaakaar naa ne yow doo doo gis leneen te loolu day doon mbégte fierté lay doon si yow yow dootoo gis leneen xam nga tay kuy yegg garab ñu lay sànni xeer mhm. xam nga dangaa dangaa raw moo tax ñu lay sànni xeer mais boo bëggee bu matadil sa bopp bëgg a gestu mhm. ci ginnaaw naan bu leen ma sànni xeer kon yow gëmoo sa bopp da ngay gëm yàlla kay continuer sa yoon daw ba egg mhm. loo fa fekk muy sa wërsëg ndax yow am nga doylu ba ba mën a daw raw ba ñuy jël xeer di la sànni ki nekk sa ginnaaw bu tolloo woon ak yow kooku du la sànni xeer kon mu nga kon alal la comme ni nga ko waxee léegi mooy magasin la boo xamante ne du jeex. Mhm. dañ koy ubbi nag léegi nag ñu la gisee nag nga jëm ci magasin bi yow yaa wax xadis bi léegi. Mhm. suñ la gisee nag magasin boobu comme dafa riis kenn dafay bëgg ñëw pour jël si la nag yow nag yaay xam li nga yor nga téye ko bu baax baax. macha allah kontaan nañ trop xam naa nag dañ lay jox sa kàddu gu mujj nga xool lan nga ñuy dénk ci li nga xamante ne moom mooy doylu. waaw non doylu moom li ñuy wax rek comme ci xol lay nekk jikko la na fexe ba nit ki à chaque fois. pour mu mën ko téye mën koo am na ci ànd ak xelam ndax xol bi mooy bëgg bu bëggee nag xel moom mooy téye li nga xamante ni xam nga tey mën ngaa bëgg dara nga dem pour jot ko nit ñi dañ koy ñaawal mm-hmm. dañ naan waa kii moom am na nangam mais ni mu ko amee ndax rafet na mm-hmm. kon foog nga gëm ni tey da ngay taxaw nga xaar boo taxawee nga xaar jàpp ni jàngoro bi la dal tay, am nga benn maladie am na keneen koo xamante ni feebar bi mu am bi nga la dal tey bu ko daloon moom day sant kon foog nga gëm escalier yooyu nga gëm ni tey li ngay am tey moom téye bi nga koy téye nga doyloo ko téye ko moom mooy yokk suba mais heure boo ko bàyyi di uti leneen te loolu téye bi nga ko war a téye matul bu yàggee ay coono ngay def sa bopp moom laa léegi ku dul feebar doo am naqar doo am métit mhm. doo am lu la metti doo am bëgg-bëgg yoo dul jot léegi ñu tàggee la mooy dee mooy ñëw mais nag tànk yaa ngi dund nag si dund ci dëkk bi di nga am loo bëggul di nga xalaat loo dul mënta jot di nga bëgg dem foo xamante ni say capacité mënu fa egg. olof Ndiaye danaan euh, mar bu la taxee naan petit. bu demee ne ubbee nga rus. waaw jeex na moom tax la ñuy wax ni bëgg a niin bu la taxee nga diwoo ndox da ngay tooy waaye doo niin xam nga soo bëggee niin. mu tax la nga diwoo ndox da ngay tooy waaye doo niin bëgg loo amul sonal ci sa bopp fan la lay yow da ngay sonn. Mm-hmm. ay dafa am ay conséquences mooy yi ñu fi wax léegi kon daal nit pour mu doylu xolam loolu mu koy yóbbu foog mu ànd ak xeram kon na moytu bu baax a baax à chaque fois fu mu nekk doylu dafa nekk benn magasin boo xamante ni wërsëg la wax naa ko sànq wërsëg la boo xamante ni nit ñaari wërsëg la am wërsëg bi ngay utali sa bopp ak wërsëg bi ñu lay utal mën nga dem uti doo am mais sa doylu mooy tax. fu ñuy joxe poste sa ginnaaw ah diw laa xalaat foog naa expérience boobu dund nga ko. Mm-hmm. loolu nag doyul moo koy indi wërsëg dafay feeñ si foo xamante ni nekkoo fa taxawoo ko. Mm-hmm. te yaa demoon uti ko amoo ko. Mm-hmm. mu pe mu feeñ ëllëg ñu ne eh Traoré mosoon na ko déclaré tey ma jóg bi mu ñëwee bëgg-bëgg boobu amul nu mu ci def gars yi ih mën na ko de waaye comportement ni mu ko doon utee baaxul kon xañ nga sa bopp wërsëg kon nga gis ni nit bu doyloo. wërsëg dina ko fekk foo xamante ah, macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci ñëw bi nga ñëw di jéggalu bu baax ci déplacement bi aussi euh, invité nañ la ñaari yoon macha allah euh, xam naa dañ ko fi yemale rek ba beneen yoon di jéem a résumé tuuti ci li nga xamante ne jot nañ ko fee waxtaanee depuis le début muy lan muy li nga xamante ne moom mooy doylu arab di ko wax al qanaa léegi nag doylu dafa nekk actualité surtout tabaski bi nga xamante ne jege si na nit ñi ñàkk doylu tax lu si bëri jëf yu ñaaw yu bëri nga xamante ne ñu ngi koy seetlu ci biir société bi muy jaral nit ñi ñi nga xamante ne ñu ngi jaay seen gor si jigéen ñi ñi nga xamante ne ñu ngi sàcc bu nekk lu doy waar li nga xamante ne daanuñu ko seetlu ci biir société wax jooju sax nag lépp li nga xamante ñu ko doon waxtaan am na lu ko tënk mooy xadis bi ma fi wax sànq suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis alqanaatu kanzun la yanfa la yanfa nee na doylu magasin la boo xamante ne du jeex ku doylu rek ñàkkoo dara olof ndjay di wax ku xeyb sa nos ken dàqula noos yaakaar naa waaw léegi nag nak naa nag thème boobu buñ ko fi doon yëgali fi ba suba du jeex dañ ko fi dagge rek di len jox dig dagge ci suñu benen numéro repère des jeunes إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته